ngeen fu Assane Diouf ne waaw foofu foofu foofu ma doon bëriwukaay bi keroog maa ngi fay Yékini cent mille fay kàddu gi soixante quinze mille ñu bëre Yékini daan ko ma ànd ak suma doomi ndey suma xarit mhm. yàlla ko yàlla xarit àjjana Mor Fadam mhm. ñu def ko production dem ci suñu benn mag mu ngi dund duut jaww mhm. mu lebal nu cinq cent mille ndeke daf nu koo may te xamuñu ko ndeysaan ma fay Tyson fanweeri junni hmm. Tyson sama avance sama fukki junni ak juróom la jëkk a jël ci àddina hmm. waran na may jox asaka fay ngeylum ngeylum boobu mi ngi nekk ci écurie bi parce que man écurie man ci écurie Mermoz laa bokk ñoo ko créé hmm. damay takk ngemb booy takk ngemb booy kayre papa yi jéen kayre maa ko jëkk jox sër mu takk di ko may benn di ko daan boobu kamaa fa nekk kon boobu kamaa la fa nekk mhm. kamaal salame ñuy ñaan yàlla na xippee àjjana amiin booba kamaa la fa nekk mhm. Modou Pouy mhm. Serigne Kane Cheikh Loum Khadim sàmb Mor Fadam ak sunu mag saa Kajoor ak kayre 1 boobu ñoo nekk ci écrit bi kenn mënu la rëppeel nit boobu ñooñu a bëre boobu gëmuñu woon gàllaaj cent pour cent gàllaaj un pour cent lañ ko joxoon li ci des dañu def cinquante pour cinquante pour cent yi doole ju bari lool def trente pour cent endurance def vitesse deux pour cent un pour cent lañ joxoon gàllaaj mm-hmm. ma ànd ak Mor Fadam ñu def ko production ne Ngaylum dañu bëgg nga bëre ak Tyson fay Ngaylum cent mille fay Tyson cent cinquante mille boobu ñoo ko tëgg mm-hmm. biñ tëggee combat yooyu continuer après ñu arrêté Moussa Mbeng suma xarit dem États-Unis man ma des fi ci la Gaston ñëwee moo du ñëw nag ma encadré leen. accompagner leen ñu accompagner leen ñu percé ba egg fenn fi. Mhm. mais ma dellu siwaat bi ma nekkee RTS def 18 ans ci média parce que bi ñu si créé Sud 94 maa jëkk a maay premier reporter lutte sénégalaise avec frappe et lutte libre e simple ci média ci ci ci rajo privé ci Sénégal. Mhm. maa suis le premier Bécaye Mbaye moo nekk deuxième. Mhm. bi ma fi yàlla dogalee ma liggéey. 2STV ma liggéey RTS ma liggéey Sud FM ba ñëw RTS def 18 ans de média su ma mag Babacar Diagne ni ma def ko feet ma def feet làmb jooju mooy saa Kajoor ak Ousmane Diop. maa leen tëgg combat boobu maa ko tëgg. Mhm. Euh, feet boobu maa ko tëgg continuer nag continuer tëgg ay lamb ba mu yàgg ma bàyyi comme defuma ko woon am na maa ngi liggéey am naa suma entreprise. mu mhm. ngi dox macha allah. maa ngi am suma dibiteri maa ngi ànd ak sumay xarit samay géer ma bàyyi promoteurs yi ñoom ku am ku ma soxla ma xelal la. Mhm. Euh, li ma xelaat ci làmb comme bëgg naa ko mbër yi aussi mbër mu ñëw ma xelal la. Mhm. ku mel ni sama doom Balla Gaye c'est mon fils. Mhm. mais c'est le super meilleur lutteur nag kooku nag mooy dàllinkoor. lu tax nga daal Balla gay mooy dàllinkoor. moo daq boo ge bu fekkee génne nga màng deux ci épogam ñam dajeeloon. génne Moustapha Guèye ñam dajee lan. Balla gay mooy mbër mi nga xam ni mii 1954 à notre jour li mu def benn mbër su koo def ci àddina ci bëri. soo boolee li mu daan ak li mu daanu lépp soo génnee combat ma Gris Bordeaux mutul 30 minutes liñ ko daan li mu daanu lépp soo ko boolee natt ku minutes yi lépp li mu daan ak li mu daanu lépp ci ñaar fukki at yi mutul 30 minutes. kon mooy mbër mi nga xam ni daan ma ma ñibbi mbala ma daan la ñibbi. dama la ne moo noppal ardu noppal arbitre musul def recours musul dem ardo ne arbo seetal seet ma mhm. bu la yóbboo ardo bala koo ardo gis mu daan la soo ko yóbboo ardo bala koo gis mu daan la maa nga daan ko dama la ne déggoo li ma la wax doom mhm. cinq mille neuf cent cinquante à not jour mhm. mbër mu bëree presque ñaar fukki combat yu topp li nga daan ak li nga daanu lépp mutul fanweeri minute benn mbër musu koo def ci àddina moo ko jëkk def ci àddina moom Balla Gaye waaw xeet doomu Double ko nag moom kon Balla ñu ngi lay nuy de passage. ah non non kooku sa papa Khadim moo la ko wax.